waaw d'accord bon léegi président mu ne na na wax pour ma jottali ko mu wax ak mbooloo mi waaw allez-y nee na mi ñuy wax asalaamaaleykum waa alliance pour la république asalaamaaleykum les élus asalaamaaleykum bépp responsable boo xam ne yaa ngi tey teew fii nee mi ngi nuyu la direction du parti di nuyu les jeunes di nuyu les femmes di nuyu les maires di nuyu les présidents de conseils départementaux di nuyu les conseillers économiques sociaux et environnementaux di nuyu les hauts conseillers ak képp koo xamante ni nii conseiller municipal nga wala conseiller départemental wala nga nekk ci composante parti boo mën a doon nee na nag mi ngi beral nuyoo militant yi ak militant yi nga xam ne lépp lu ñu am tey ñoom ñoo ko waral lépp loo xamante ni nii tey ndam la bu mu am Sénégal dañu koy ndamoo militant ak militant parti bi ñoo ko waral nee na mi ngi nuyu nag li nga xam ne moom mooy les élus mais nee na ci beral nuyoo ñi nga xam ne ñooy député yi nga xam ne ñoo nekkoon ci groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar di ci boole képp koo xam ne yaa ngi àndoon ñoom ci xeex bi ñu nekkoon. nee mi ngi am mbégtelul boo bu mag ci ndaje tey bi ndax am na loo xam ne waree na ko ci njaboot bi nga xam ne yéen yéen a ko dénkoon boobaak léegi léegi tey mobilisation bi nga xam ne moo am tey wane na ne képp koo xam ne yaa ngi wër di wax ci turam naan président moo ma yónni wala président moo wax naa dem ci beneen njaboot wala président moo wax naa wax nangam ak nangam yónniwul kenn njabootam tey fii la ñu loolu nag li muy wane mooy njabootam. tey la ñu gën a takku ci mi ngi leen ñaan ngeen gën a nekk benn nekk ci ginnaaw responsable yi teew fii tey. nee ñii wax naan dem na dootul ñëw ñii wax naan dootu fi jege tey la gën a taxaw ci kanamu parti parti bi. nee na tey la gën taxaw ci kanamu parti bi pour ñu gagné élection yi di

suñu programme de législature ak programme de gouvernement boo xam ne suñu le 17 novembre boobu la ñuy taxawal ci réew lépp loo xamante ne nii bàyyi na ko fii ci wàllu koom ci wàllu réalisation ak ci wàllu doxalin bu rafet livre blanc bi nga xam ne publié nañ ko barki Demba Ndiaye wane na lépp loo xamante ne nii def nañ ko ci lu am solo. nee yàlla te xam ne lépp lu nekk Sénégal doomu aadama mën ko tey fukki at ak ñaar yii ci ginnaaw tegoon nañ ko ci suñu loxo ñu yor ko yor mi ngi wax nañu gëm yàlla te xam ne yàlla jugu fi xam ne liggéey bi fi def du fay ba allah yow mi diini nee na nag amul benn ragal boo xam ne war nañ ko am li nga xam ne moo nekk suñu kanam nee na dañu xam ne ñun démocratie la ñuy doxal dëgg la ñuy doxal te ku ne xam ne ne ay pexe tey mi ngi jóg pour ñu yàqal nasaxal lii alliance pour la république waaye loo xam ne la yàllaa ko fi tegoon yàllaa ci teg loxoom sénégalais yi ànd ak moom te loolu li ci kanam moom moo gën a am solo Mm-hmm. Mm-hmm. nee na dañu bëgg mu xamal leen ne amul kenn koo xam ne parce pexe yi ñuy yëkkati ay pexe la yoo xam ne mi ngi jëm ci jéem a deru président Macky Sall yàq xelu nit ñi waaye mi ngi leen di wax ne loolu bu teye kanam gi nga xam ne moom la leen féete day continuer taxaw tey ak ëllëg pour que li nga xamante ni sumb nañ ko nu mën ko àggale parce que tant que ñoom yàquñu deru président Macky ba li nga xamante nii moo leen teree néew te liggéey boo xamante ne def nañ ko ci réew mi te mënuñu ko fay du ñu am li bëgg waaye jàpp ne lu muy wax ci turu parti bi ak turu coalition bi la koy waxee pour que ñëpp jot ci nee na mairie waxal président conseil départemental yi ak responsable yi nekk fii nee képp ku ñëw ci yéen naan leen président mooma yónni président mooma waxal nangam te gis leen ko ci responsable yi yàq ko tax a jóg ak wax lu dul dëgg waaye yónniwul kenn lu yónnee ci responsable yi ne ko yónnee wala mu bind ko ci loxoom militant yëpp gis ko ci turu parti bi ak coalition bi nga xam ne dinañ ko taxawal te muy doon coalition bu yaatu lool. musul xool lu mu am wala lu njabootam am lépp loo xam ne daf ko daan def daf koy def pour Sénégal ñi nga xam ne nag dañu am loo xam ne moom la ñu wut woon ñu jàpp ne nguur gi jeex na tey mën nañoo dem ku ñu mën a waxal nañu wax ak moom waaye ku dem nañu toog xaar yàlla ak suñu liggéey loolu moom la bëggoon a wax ñëpp. li am solo mooy population yi ñooy fël nañu dem ci population yi waxtaan ak ñoom responsable yi aussi mi ngi di ñaax ngeen dem à la base parce que yi ñoom ñooy doxee li nga xamante ni moom la soxla ci réew mi. Hmm. Hmm. nee ki nga xam ne moo lay mooy investiture yii nga xamante ni ci la ñu jëm ci yu néew munta mel comme investiture yi njëkk yi nee na tey fii ñu il faut nit ñi fàtte seen bopp ñu teg Sénégal ci kanam booloo nekk benn xam ne dañuy ibbeeku ànd ak yeneen force yi nga xam ne liggéey Sénégal moo leen tax a nekk mën a gis boppam ci li ñuy def te gis boppam ci li ñuy def nag mooy Sénégal gis ci boppam ñu mën a am investiture yoo xam ne dañuy teg intérêt Sénégal ci kanam mën a am programme boo xamante ni programme de législature ak programme de gouvernance boo xam ne ñëpp dinañ ci xaj ëllëg ba Sénégal mën a gën a mën a jëm ci kanam nee na ñi nga xam ne militants yi ñoo leen jiital te yàlla def ci ñoom xam-xam ak xarañte te ëppale wuñ ko kenn ñooñu tamit nañu ibbi seen xol ibbi seen xalaat ba xaj xajal képp koo xaj kilifa nga wala militant la nga mën a xaj ci mbir mi comme ça ñi nga xam ne ñoo nekk ci njaboot bi mën ci gis seen bopp. nee pour terminer Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. nee na li li li moom mooy dafa am ñu bari yoo xam ne tey jii pour pour justifier seen taxawaay dañ naan président daal tey la Sénégal président dafa jàppale ñu fi nekk président dafa am ay dili dem nee na réponse la yéen di jox nag foofu lay nee li nga xam ne mooy moom doon candidat te ku ne xam ne ne addinaam mooy Sénégal am jàmm nee loolu moo indi lii nga xam ne moom lañ doon wooye la loi d'amnistie pour mën a dem organiser élection ci jàmm pour que Sénégal mën a dal bàyyi réew ma ci jàmm du ko bàyyi xeex xuloo comme tey lii nga xamante nii moom lañ ci gis nee na su fekkoon ne ñii fi ne dafa am benn complot boo xam ne am na ko ak ñoom moom en tant que président bépp wareef boo xam ne war na koo jot wala ñu war koo defloog moom amul dara xam ne jot na ko ci ñuy dal ci njabootam di dal ci ay militant di dal ci ay responsable am jàpp naa ne koo xam ne dafa ne complot kenn du noonu ak moom donc amul dara loo xam ne dox na ci ak ñoom. nee na ne moom la war ak réew mi warloo ko ak candidat bi nga xam ne moom dafa fekk njabootam fii ci parti bi mu tànn ko contre la volonté de tout ni mu doon financé campagne lu ko raw la financé amul dërëmu kenn bu dem ci campagne électorale bi la mu warloon ak moom warloo ko ak dëkk bi warloo ko ak parti bi def na def loo xamante nii jéggi na loolu il faut Sénégal yëpp xam ko militant képp koo xam ni nag wax leneen dangay yoon rek pour dem waaye ku bëgg a dem ak ku bëgg a dee yam kenn mënul dara kenn mënu leen nee na ni muy terminé nag mooy xeex bi ñu xeex xeexu ñëpp la nee na ñi muy terminer mooy il faut ñu xam mbir mi ñëpp ñoo war a def seen loxo tey jii ni ñu tasee assemblée nationale bëggoon ko tasee au conseil ak conseil économique su fekkee ne majorité amuñu ko ci élection yi ci maire yi lañ jëm ak président conseil départementaux yi donc loolu mi ngi wax ne képp koo xam ne yaa ngi nekk ci parti bi wala ci coalition bi ñu war a taxawal wala nga nekk sénégalais boo xam ne Sénégal moo la yëkkati nañu foobu ñun ñëpp ànd ci xeex bi pour yàlla mën ñu may ndam parce que yàlla moo yor sutura àdduna parce xeex la ñu waaye yàlla mooy fale te yàlla ku mu suturaal mooy ki nga xam ne mi ngi xeex guddeeg ba bëccëg ngoon te noonu ngeen di doxale léeg-léeg bëggul lim bi juum mais direction parti bi ci yéen lay mujjee parce que nee na tous les ñi nekk ci direction parti bi mi leen di remercier ndax taxawaay bi ngeen ko taxaw ci ginnaawam rafet na te loolu nee na mi ngi boole jigéen ñi di ci boole ndaw ñi di ci boole arabisants yi di ci boole enseignants yi di ci boole étudiants yi bi ci boole jeunes yi di ci boole cadres di ci boole mouvement national des handicapés di ci boole sage yi di ci boole aussi comme ni ñu wax nee na foofu lay mujjee te loolu moo gën a am solo mooy militant yi ak militant yi ak képp koo xam ne sénégalais nga wasalaamaaleykum wa rahmatullah nee na mi ngi leen di sant yëpp di leen gërëm والكسوة بزاغرت يا ربا تدلل أهلي كوبينو ويلتي كوبينو